réewum Mauritanie wéy di dalal ay ganam ñoo ngi fii ci Nouakchott ci bërëb bu ñuy wax Daaru Naim 16 yenn ci délégation yi bàyyi ko réewum senegal ñëw ci réew mi leen ngir amal seen ziar ca Sarsara fii nag la ñu dal booba ak léegi def ñaari fan nekk mbégte mu rëy ci mbooleem mbokki taalibe yi nga xam ne nii ñoom lañ fekk si fii loolu tax na nag mbooleem matuwaay ak anam yi nga xam ne gan yi dinañ fi nekk diirub ayu bés jël nañ ko ba mat sëkk. di leen wax rek fa tabarakallah gan yi alhamdulilah rabbil alamin am mbégte ci ñoom préparé leen dalal leen boo xoolee fa tabarakallah jël nañ juróom-ñetti appartement yi nga xam ni fa nañ dalal gan yi ñi ne ñenn ñi nga xam ñu ànd ak soxna aussi ñoo ci biir kër gi kon macha allah fa tabarakallah kontaan nañu baax a baax ci bés. mention spéciale ak suñuy dëkkandoo yi parce que bu suñ bu gan yi ñëwee léegi duñ génn seen lal génn seen néeg yaatalal gan yi fa tabarakallah jël seen xaalis di ci def di teral gani gauche ak droite xoolal ni cant bi sëñ Sabara koy def waaye macha allah dëkkandoo yeeg mbokk yëpp jàpp ci. jafe-jafe amuñu ko benn yoon fa tabarakallah macha allah boo xoolee sax at yi ñu daan ñëw ci la daan gën guddi waaye ren fa tabarakallah Serigne Touba def na ci xéwal bay teel nañ ñëw kon macha allah amuñu benn jafe-jafe ci organisation bi. buñ sukkandikoo ci kàddooy yenn ci jëwriñu daayira yi ak mbokki taalibe yi nga xam ne ni ñooy taxawu liggéey bi lépp nag mu ngi bàyyee ko ci yi ak daayira yi fasantikoo ngir liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim fii ci Mauritanie. bis lu lu mënu fekkee daal ko ci def sëñ Tuubaa danañ ci def loxoom ak Seex Masamba lépp dana jàll fi yoon waaw ñun amuñu leen amuñu kees bu ñu koy dajaleel amuñu leen mais bu bu waxtu wee jeeg se rek sëñ Tuubaa ñëw ak xéewal ak Seex sàmba ba lépp jàll ci xéewal gi def si mu nekk mbégte bu rëy ci ñun ak bànneex di ñaan yàlla suñu borom ne yàlla may kattan ak mbégte kattan ak lu ñu ko mën di defee at mu ne di ko bokk ak bokki taalibe yëpp. benn ci délégation yi nga xam ne ni ñu ngi bàyyeekoo ci réewum Sénégal ànd ak soxna maam Issa Mbacke diiru ayu bés bi nga xam ne moom la ñuy nekk fii ci Daaru Nahim dana am mbégte ak njeexit bu baax a baax ci askan wi fi yeewoo rawatina tu tànk yi loolu nag di ay kàddu yoo xam ne nii ñi fi féete ñoo ko daal di xamle. ñoo ngi sant yàlla bu baax ci gan nga xam ne nii ñëw nañ fii ngir ay jéego yu baax. muy bërëb bu baax di Sarsara di sant bu baax itam buñ fi ñëwee gis nañ ci ñoom ak njullite ak ak laabir loolu tax na nag ñu yaatal leen bu baax a baax di ay gan ñoo xam ne itam wax dëgg yàlla lu baax rek lañ mën a seede ci ñoom muy jàng alxuraan bernde ak lépp lu ci aju moom daal am nañu cant ak mbégte bu baax a baax boo ma antu mushkila macha allah. ci fàttali rek jéego yi li ko waral du lenn lu dut waajal ziyaaru Sarsara atum 2022 ren ji ñu tuddee ko Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke ñu war koo jàpp ajuma bi ñu dëngmal li ko jiitu comité bi nga xam ne nii ñoo nekk fii tey saytu lépp lu jëm ci wàllu woowu ànd ko ak mbooleem ñi nga xam ne seeni yoxo da ciy tàbbi ñoom itam dinan amal yeneen i xew-xew yu am solo fii ci dëkk bi di Mauritanie bokk na ca yooyee nag wone bu baax a baax njàngaleem Serigne Touba ak njeexit gi nga xam ne ni ak nekkam amal na ko fii ci réew Mauritanie